xale bi ñu war a jël mu ngi tudd Abdoul Aziz Anne doom ci Cheikh Omar Anne ak Soxna Bintu Dia dëkk Fuuta dëkk bu ñuy wax Gijiloon Abdoul Aziz Anne suñu première laaj ak yow baada aoudu billahi min alsheytaan irrajim awfu lkayla wala takunu min almuxsirin bismillah الشيطان Oustaz Cheikh Omar moom tamit mu laaj la ay laaj bismillah sëñ Abdul Aziz Al euh, ñu dellu ci ñaareelu laaj bi baada aawuzu billahi min alsheytaan alrajim wa iz yarfacu ibrahimu alqawaacida min albeyti wa ismaacil rabbana taqabbal minna in innaka anta samiu alalim bismillah aoudu billahi min alshaytan sadaqallahul aziim sadaqallahul aziim macha allah sëriñ Abdul Aziz li nga tari neex na lool yal yàlla barkeel sa alquran yal na la yàlla def magum lislaam kon ñu jàll ci gunge yi euh, dañuy continuer ci gunge yi rek mais balaa ñuy continuer ci gunge yi am na ay organes yu fi teew organes yi fi teew euh, dañ leen sant rek di leen gërëm bi ci njëkk mooy Chérif Dabakh TV ñoo ngi koy sant di ko gërëm ci couverture bi beneen bi mooy Al Ajdaat TV ñoo ngi koy sant moom tam di ko gërëm seen TV teew nañ fi ñoom tam 2S TV Zik FM ñoom tam teew nañ fi ñoom ñëpp ñu ngi leen sant di leen gërëm bu baax a baax kon duñu def lu jox Abdoul Aziz mu continuer ci wax bi oote bi macha allah barakallahu fiika yaa Abdul Aziz An xale bi di bëgg a tari mi ngi tudd Cerno Yaxya Li di doom ci al imaamu Omar Li woo soxna Ayda Diallo dëkk Caaroy Gaar bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم أفلا توبون إلى الله ويستغفرونه والله وأمه صديقة hasbuk sadaqallahul azim macha allah barakallahu fiika yaa cana yaxya li yaa na yàlla barkel alquran bi xale bi ci topp mooy Mouhamadul Habib Niang di doom ci al oustaz Serigne Omar Niang wa soxna Fama Niang dëkk Scat Urbam Mouhamad bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن والله عزيز ذو انتقام حسبك صدق الله العظيم ما شاء الله ما شاء الله محمد الحبيب نعم بارك الله فيك يا نيالا بارك القرآن yàlla na si yàlla teg mokkal alquran daftal ci xam-xam macha allah ummi ñang di doom ci muhammadul amin ñang wa soxna ndey njaay dëkk Thiel um maam xadijatu kamara di doom ci abdullahi kamara wa soxna ndey jaañ iskat irbam bismillah Kumba xale di bëgg a tari kenn gi mi ngi tudd Bachirou Seck di doom ci Abdoul Aziz Seck woo soxna Soda Touré dëkk Scar Urbam beneen xale bi mi ngi tudd Ahmadou Diallo di doom ci Idrissa jàlloo woo soxna Dieynaba Diallo dëkk Géejawaay beneen xale bi mi ngi tudd Alioune Diallo di doom ci Wore Wori Diallo woo soxna Amintou Ndiaye dëkk Kédougou bismillah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 كفروا في عزة وشقاق كما لكنا حسبكم صدق الله العظيم ما شاء الله بارك yàlla na yàlla bi roqayatu diouf di doom ci alxaaji moodu diouf wa soxna ndey astu seen iskat irbam mari ndooy di doom ci alxaaji omar ndooy wa soxna jobe ndooy iskat irbam bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم Babacar Mbaye di doom ci Cheikh Omar Mbaye wa soxna Aji Fari Liberté 6 Moussa Dia di doom ci Mouhamadul Habib Dia wa soxna Fatimatu Ñang Liberté 6 Omar Thiandoum di Mbang cité Bastos bismillah بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي xasbukum baarakallahu fiikum xale yi di bëgg tari kenn ki mi ngi tudd Abdul Lakoor di doom ci alxaaji Daawuda Lakoor moo soxna Mati Gay dëkk Linguère beneen xale bi mi ngi tudd Baye Sidi Fall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 هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا وإن كانوا من قبل في ضلال مبين حسبكم sadaqallahul aziim macha allah barakallahu fiikum yal na yàlla barkal alquran bi Ahmadou Kane Abou Bakri Dramé Mansour Ndiaye xale yi ñu xaar tuuti ñu jox Mouhamadul Mounir mu am kàddu yu mu sànni bismillah aouzu billahi samii alalim min alsheytan arrajim bismillahi arrahmani arrahim alhamdulilahi rabbil aalamiin wal aaqibatu lil muttaqiin wala udwaana illaa ala zaalimiin wasalaatu wasalaamu ala ashrafi albashariyati walbashar sayidina muhammadin xayri bani mudar wa ala aalihi wa saxbihi al-ghurr ñu ngi leen nuyu di leen dalal di leen tatagal di wàcce ku nekk ci wàccuwaayam di wax ne daaray alxaaji Cheikh Niang bu mënoon a nekk jëm ju am xol te mën a soppi xol bi loxo fekk ku nekk ci yéen fi mu toog muy góor muy jigéen jox ko loxo ne ko assalaamu aleykum gis nañ sa teewaay rafetlu nañ ko dana ko def waaye olof dafay faral di wax ne li duuf ci nag bi xajul ci cin li xanaa ñu dagg ko benn par benn ñu def ko tuuti par tuuti ba mu mën a jeex loolu moo waral suñu kàddu day tënku rekk ci tudd gërëm ñenn ci ay kilifa ci seen teewaay doonte duñ mën a lim ñépp jàpp leen ne suñu làmmiñ ñooñu rekk la mëna tudd waaye suñu xol jàpp leen ne tudd na kenn ku nekk ci yéen te gërëm ko ci teewaayam bokk na kon ci kilifa yooyu ñu fas yéene tudd gërëm leen ci seen teewaay Seydi Ahmad Al Amin Ly ñu ngi koy sant di ko gërëm ci teewaayam di ci teg alxaaji Aliyun Sow bu xaar yàlla Cheikh Tidiane Ba ak Mbay Fay sëriñ congaan xaar yàlla sëriñ Mamour Seck bu Mbàkke moor sëriñ moor ñang bu tëngéej sëriñ Moodu Jóob bu tëngéej sëriñ cheikh ñang jóge ba Thiel sëriñ cheikh omar dia jóge Thiès sëriñ moustapha mbuub jóge Fass Touré sëriñ alxaaji fàllu ba jóge ba kawlax alxaaji muhammadu sow jóge ba pikin alxaaji ismaila ñang jóge ba Nord alxaaji sëriñ alxaaji Tayyibu Njaay ak la ministre alxaaji alxaaji Baba Wan ak suñu woyjur alxaaji Lamin Caam suñu woyjur alxaaji Mamadu Mbeng ak sëriñ Habib Kan sëriñ Sharif Ñang sëriñ Abdul Aziz Mbaay sëriñ Maam Babacar Mbaay sëriñ alxaaji aliyu sow ak waa jàkka ji def nañ fi délégation daldi teew ci njiital al imam bokkum ak alxaaji tunkara ak sëriñ muhammadu mbeng alxaaji bekaay tunkara ak ustaz ba ak sëriñ Thiaw ba léegi bokk na ci ñi fi teew sëriñ Aliyu Saaxo bu kër Soose sëriñ Aliyu Saaxo bu kër Masaar Muhammadul Amin Nduur sëriñ Lamin Li waxoon nañ ko ak sëriñ Xasan Ñang bu jaaga ak sëriñ Xamidu Ba alxaaji fàllu sekk alxaaji cheikh sekk sëriñ Pape Dia di directeuru daara ali imran bu al oustaz Alioune Sall teew na alxaaji asan bu ayn ma di jaaga ak alxaaji baay jeng baay ñang jiwaalo kon ñooñu lañ mën alxaaji Assane Niang bu jaaga nga xam ne ñi jiite daara alxaaji Cheikh Niang tey ci loxoom lañu jaar moo leen formé ca daara ju mag jooju di aynu maa di jaaga nga xam ne ba mu ubbee ba léegi la mu génn ci ay xaafisul quran kenn xamul nu mu toll te waxoon nañ ne euh, boo jàngalee nit xam-xam xam-xam booba képp ku mu ci jëriñ kooka ku mu ci jariñ jëriñante ba lu muy gën di yokk rekk say pourcentage ci yiw di gëna yokk rawatina nag ndeyu xam-xam yi di alquran kon moom yiwam kenn xamul nan la toll ci daaram la jaar kon Seydi Omar Ñang mi yor daara ji ak Seydi Mouhamadul Amin Ñang kon mën nañ ne mboolem ko mokkalee ci daara ji moom alxaaji asan ñang bu aynu maa di jaaga am na ci yiw ba léegi am nañ ci suñu gan yi l'honorable député l'honorable député Marie-Louise Diouf ak ñi mu àndal ak délégation bi mu àndal ak enveloppe bi am solo bi mu indi ak participation am ci wàllu ventilo yi nga xam ne moo ñuy fegal tàngooru bés bi ñu ngi ko ciy gërëm bu baax di ko sant ngërma ne loo xam ne am na fu mu commencé mais amul fu mu yem di ko wax ne yàlla mi nga xam ne moo tax mu def ko gis na ko di ko ñaanal mbooleem loo xam ne mu ngi koy yóotu mu jot si yàlla yokkal ko ay martabaam ci wàllu àdduna ak mboolem lu mu bëgg Cheikh Bakhoum di responsable politique euh, APR ñu koy defal mention spécial comme ni ko monsieur la maire monsieur Ndoye santaane euh, ci taxawaayam ci bés bi daf ko fekk mu am ngànt waaye teewul def na déplacement ak dérangement lu jiitu bés bi muy démb ngir yëgal ñu yëgam yëg-yëg bi mu am ci daara ji ak yéene bu mu ci am kon ñu ngi koy gërëm bu baax di ko ci sant bu baax teewul yebal na fi ndaw gis nañ ko ñu continuer ba léegi ci gërëm ñi nga xam ne jàpp nañ ci bés bi muy association des femmes bu Scat Urbam gis nañu seen taxawaay ci njiitalu soxna Koura Cissé ak soxna Astu Saña ak euh, ñeneen ñi topp ci seen ginnaaw ñoom ñi nga xam ne ñu dalal ci koñ bi jël daara ji ak jàkka ji ndayoo ko bàjjanoo ko muy ndayu daara yi ak bàjjanu jàkka ji gis nañu seen taxawaay ci bés bi niki tamit association des parent d'élèves bu daara El Hadji Cheikh Niang ci njiital président babakar Wade gis nañ seen taxawaay ci bés bi ñu ngi leen di gërëm di leen sant euh, niki noonu tamit bokk na ci association yi association bu ancien daara ji nga xam ne ñoom ngeen di ànd ak ci mbooleem conférence bi ñoom ngeen gis ñu sol yére yu yànj yooyu macha allah ak seen bas yu rafet ñoom ñi ngi ci biir ñi ngi leen di gërëm di leen sant di leen ñaan rax ñaax rekk ñu gën a yokk rek xam ne bés bi des na lu bari gën a góor góor lu bañ a lâché dem ba jeex incha allah niki noonu tamit mouvement Scat Urbam ëpp ci njiitalul Aboubacar Ba teew nañ niki noonu tamit suñ papa gise teew na ñu ngi koy nuyu Ibrahima gise ak euh, suñ papa euh, Njaay dëkk ci koñ bi ñu ngi koy nuyu di ko ziyaar ak suñ dëkkandoo waa daara ji nekk fii ak euh, sëriñ àlla ñang di suñu mbokk moom it teew na ñu ngi rafetlu teewaayam média yi nga xam ne teew na tamit ñu ngi leen di gërëm di leen sant bokk na ci Al Ajdaad TV euh, ak Cherif Dabakh TV ak waa Sen TV waa 2S TV ak waa Zik FM niki noonu tamit waa Walf TV ñu ngi ñuy wax ne ñu ngi ci yoon bi di ñëw yéen ñëpp gis nañ seen teewaay macha allah jërë jëf yàlla rek moo am seen fay yal na leen yàlla fay. ni ki noonu tamit alxaaji Khalidou Sow gis nañ teewaayam ak euh, Adja Kani Seck Mbacke ak alxaaja Safi Niang ñu ngi leen di nuyu di leen ziar comme ni ma ko waxee woon ci commencement bi rek daal alxaaji Cheikh Niang bu mënoon soppaliku jëmm am xol day def xolam loxo fekk ku nekk fi nga toog nuyu la xamal na la sa teewaay rëy na ci ñun ci bés bi ndax ku woote ku nekk ku la wuy si nga bëgg donte buñ toppoon di lim tout par tour yaakaar naa bés bi li ko taxoon a jóg dootul mën a nekk moo tax ñu lim ñi nga xam ne mënuñoo ñàkk rek ñu yóbbaale ñi ci des waaye jàpp leen ne yéen ñëpp gis nañ seen teewaay te kontaan nañ ci macha allah daara yi fi teew association yi fi teew ñi nga xam ne dañoo teewal seen bopp ngir sopp daara ji ak bëgg ko yéen ñëpp gis nañ leen ñu ngi leen di gërëm di leen sant amuñu seen fay yàlla mi tax ngeen teew yàlla na leen fay yiw te yàlla fayam moo ëpp doole ndax dana am ci àdduna ak ci àllaaxira kon ñu ngi leen di gërëm di leen sant di delloo kàddu gi suñu mbokku animateurs yi ñu doxal incha allah jazakumullahu anna xayran na aïchatu drame escale irbam Mouhamad Seck di doom ci Mamor Seck wa na Mati Ñang dëkk France Baba Diène di doom ci Babacar Diène wa na Ummi Gueye dëkk ba ñaari tali bismillah فالموليات هدها macha allah baarakallahu fikum cheikh Tidiane Niang di doomu suñu waajur Baye Mor Niang ak soxna Xadijatu Niang mu ngi ñëkk dëkk ba ñaari tari foog naa moom mooy suñu e, ñeenteelu xaafis duñ def lu dul bàyyi ko Oustaz Babacar Badiane Oustaz Babacar Sène mu laaj ko ay laaj sëriñ Cheikh Tidiane Niang sama première laaj ak yow muy aayaat yii ma lay bëgg a tuddal ci suratu Ali Imran baada audu billahi min alsheytaani alrajim wa yukallimu nnaasa fi lmahdi wa kahla wa min alsaalihin بسم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين قالت رب أن قال كذلك الله يخلق ما يشاء كرر قال كذلك الله قد جئتكم أني قد جئتكم بآيات من ربكم إني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طائرا بإذن الله وأبارك barakallahu fiika Cheikh Tidiane Niang ñaareelu laaj bi dañ lay jox Mouhamadul Amin Niang mu laaj la benn laaj bismillah jërëjëf Cheikh أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين ويعذب المنافقين إن شاء وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا وأنزل الذين ظاهرهم من الكتاب من صياصيهم من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا وأورثكم أرضهم book wa sadaqallahul azim sadaqallahul allah tari bi neex na lool waaye temps bi moo ñu moo ñu xoj konoon dañuy continuer ak yow ba ci kanam kon duñ def la dul jox euh, oustaz Abdoul Aziz ak oustaz Cheikh ñu continuer ci ñuy gunge ba ci kanam insha allah na rugi taal dëkk Kaolack beneen xale bi mi ngi tudd Abou Bakar Dramé di doom ci alxaaji Xasan Dramé wa soxna Mariama Jakite beneen xale bi mu ngi tudd Mansour Ndiaye di doom ci Maodo Ndiaye wa soxna Fatou Ndiaye dëkk Amerika bismillah balu macha allah barakallahu fiikum na yàlla barkal alquran bi eh, gis nañ teewaayam ñoo ngi koy rafetlu bu baax a baax sëriñ mañang sëriñ mañang kër mbay fall moom tam teew na mi ci jataay bi eh, soxna aja kinna jaañ moom tam teew na mi ci jataay bi aja xafsatu daraame eh, di yaay daara daara ji ñëpp xam nañ ko xale yëpp koo ci laaj aja xafsa xam na mu kan mooy aja xafsa moom nee na indi na fi vingt mais nee na diis yi dañ ko wàccee fii yeneen diis yi nañ ko yóbbu ca aynu madin jaaga waaw eh, yàlla na ko yàlla fay dem na ba aynu madin jaaga sa conférence day dem mooy eh, li leen Mouhamed El Mounir doon wax ne leen ñi nga xam ne ñoo dirigé daara ji ca aynu madin jaaga foofu lañ jàngee muy daara alxaaji Xasan Ñang kon ñu ngi koy sant ñu ngi leen sant ñëpp di leen gërëb bu baax a baax kon duñ def lu jox seexu mu continue ci tarib kii di bëgg tari mu ngi tudd Cheikh Ahmed Tidiane Diong di doom ci Abu Hamadi Diong wa soxna Xawa Mbay skat Irbam bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين وإذا ما أنزلت سورة فمنهم يقول أيكم فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون حسبك صدق الله العظيم ما شاء الله بارك الله فيك asmaa u ñang umu kalthum silla di doom ci alxaaji baara silla wa soxna aminata silla arafat bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله

يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل يرجي من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم التائبون العابدون الحامدون السائحون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف الساجدون الآمرون بالمعروف والنهون عن المنكر والنهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر بشر المؤمنين حسبكما صدق ma العظيم ما شاء الله بارك ñang di doom ci sunu sëriñ sëriñ Omar ñang wa soxna faama ñang Scat Urbam ndey olimata ñang di doom ci alxaaji daam ñang wa soxna aminata gay dëkk Sadio bismillah

bi neex na yal na yàlla barkeel boobu toog di Cheikh Fati Gueye di doom ci ibnu alxaaji Moustapha Gueye wa soxna Soose Ñang dëkk Thiel Jolof ñu ngi jox oustaz Babacar mu laaj ko bismillah Cheikh Fati Gueye suñu premier laaj ak yow ayaat yi ci suratu Ali Imran بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم عمل عامل منكم من ذكر أو أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم عمل عامل منكم من ذكر أنثى بعضكم من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم من ديارهم وأوذوا في سبيلي وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم سيئاتهم ولأدخلنهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها خالدين فيها نزلا من عند الله وما عند الله خير للأبرار وإن من للكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليكم وما أنزل إليكم إم خاشعين لله لا يسترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم ربهم إن الله سريع الحساب يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا وصابروا لعلكم تفلحون حسبوك Cheikh Faty Gueye suñu ñaareelu laaj dañ lay bàyyeeg imaam Mouhamed Niang mu laaj la ñaareelu laaj bi bismillah jërëjëf oustaz Babacar Seck bëgg ceeb xam naa ne yow sànq ba léegi dégguñu loon waaye bu ñuy séddale mbuus yi xam naa ne incha allah <laughs> léegi tey nga sawar Cheikh Faty euh, dañuy def yow laaj la beneen laaj أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يشهدون يستبصرون وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة مرة أو مرتين مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض أرض هل يراكم هل يراكم من أحد ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون يفقهون حسبك وصدق الله العظيم صدق bi neex na lool euh, temps bi moo ñu xoj moo tax te balaa ñoo jullit yi ak di añi bëgg nañu dugalaat kenn incha allah kon duñ def lu dul euh, jox oustaz Babacar Sène mu jàllale xale boobu xale bi ji topp mooy Mouhamed Korko Diallo moom it bokk na ci xale yi mokkal alquranul karim di doom ci Omar Diallo ak soxna Ismatu Diallo dëkk Kédougou Mouhamed suñu premier première laaj mi ngi doon ci suratu euh, suratul an'am ba'da a'udhu billahi minash shaytanir rajim وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصنامنا آلهة إني أريك وقومك في ضلال مبين بسم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ قال إبراهيم لأبي آذر أتت نتخذ أصنامنا آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات يشركون ko jàlla dañ lay bàyyeek imaam Mouhamed Niang mu laaj la ko bismillah Mouhamed Korko Diallo jërëjëf Mouhamed Korko Diallo baada aoudu billahi min asheytan arrajim yaa ayyuhan nabiyyu jaahidil kuffaara wal munaafiqiina wagluz alayhim wa ma'waahum jahannamu wa bi'sal masiir yaxlifuuna billaahi maa qaalu bismillaah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها النبي واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفر بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله فإن تولوا يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير ومن أحرقن ولنكونن من الصالحين فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وتولوا وهم معرضون فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه ما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 ñëppangilay ndokkeel yeyu nga teranga mokkal nga yow jërëjëf amuloo yaranga mokkal nga yow jërëjëf amuloo yaranga man de ñi naa la man de bëgg naa la ndaw lu tol ni yow mi wattu tere Yàlla dawlu tolli yow mi wattu te yàlla texe fi ak fa nu jëm dund ak wér ak gudd moom lan lay na ñëpp na ñëpp ne macha allah tabaarakallah kon ñu jéem a rek waajal waxtu wi comme ni ñu ko alquran santaane tam moo ñu fi dajale